سلام ربنا دائما برايا کوئی فری تناب ہو أن نور الختم لي لكم قد حل في خيمة من أرهب يكفارنا على نبي وآله سجد جتين سلام ربنا دائما جفلني جيانا عن عاترا بخير خير البخير وأفريس سجادة تكريما ما يقرأنا على نبي وآله سكتجة الذين صلاة ربنا دائما جفلني جيانا خال الملائكة أبواب سوافتي فتحت كذا الجنان ونور الشيخ الحاج مالنا على نبي وعلي أجمعين آه. سلام ربنا دائما كي شيء لا ويا خديجة وعلي وابنها شتين وما سبيون يعينون على وكي شيء لا بقل أجمعين سلام ربنا دائما ba yonent yaa ngi noonu suma bunu aw fi wasal dënn saaba yaango loxo yi ca kaw loxo ca kaw saaba yaango loxo yi ca kaw saaba yaango abubakru saaba yaango ana omaru saaba yaango ana usma saaba yaango ana aliyo saaba yaango loxo yi ca kaw saaba yaango soppe sëñ Babacar Si soppe sëñ Babacar Pado saaba yaango soppe sëñ Babakar Si ku mu jaaral loxo ca kaw ku mu jaaral loxo yi yonent bi ya Rasulallah ku mu jaaral loxo yi ku ci jaaral loxo yi ya Rasulallah ana rawdu bi ya Rasulallah ya Rasulallah génneel ma rawdu bi ya Rasulallah raw màggal génne ma raw du bi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ya jara màggal ana waa kii ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya jara màggal génne ya rasulallah ومخص لا تخاف فعندك كل العالم وجعل من ذلك فرحا أيوة أرسل رسوله يا لين ودين الحق يا لين على دين كل وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار وحما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه نزل السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في كثر حين أخرج شدعه فحاضره فاستعضله فاستوى على طوبى يعجب الفراء عليا من الكفاء وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجرا عظيما ايوه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون والولاء عنا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي حملنا من مقام لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها يا جرم قلب زغزا سقما مدينة وعلا أيوة مدينة يا Maodo yaanu xamal yonent Maodo yaanu xamal yonent yaa Rasulallah yaa jara Maodo yaa fi xewal gàmmu Maodo ku fi gàmmu ci yow la ko gisee yaa Rasulallah yaa jara màggal moom la de ma Maodo fi xewal burdu Maodo fi burdu ci yow la ko gisee yaa rasulallah oh, oh, oh, awa awa awa adalaay ja doomi adalaay ja doomi abdalaay Abdoulaye Mouhamed Abdoulaye Koudou doomi Abdoulaye Cheikh Koudou Pape Malick Cheikh Hachim Koudou Pape Malick Hachim Abdou Manaf Koudou Abdou Manaf Kousey Koudou Kousey Kiram Koudou Kiram Murata Koudou Murata Kaab Koudou Kaab Louway Koudou Louway Ghalib Koudou Ghalib Fir Koudou Fir Malick مالك مضر كنانة خزيمة مدركة إلياس مدر مدر نذار مع العدد كل حزب بما لديك فريق لخطة ويتالي بشر مام خليفة نيقل بمودج لقلق قدم جنين من لا ميدانين ويتيجاني مام خليفة موني دانين ana soppey yonent ku ba ci loxo yi ca kaw ana soppey yonent ku ba ci loxo yi ca kaw spécialu Mamadou TFM lay xewe spécialu Mamadou TFM fa lay xewe ana ñi bëgg Mamadou Lam yéen ku ko ci jaaral loxo yi jàkko Muhammadu moo di tuuram lu baax yelloo na nabi yow loo mën a wax doo paase kii baax na loxo yi bu guddi xaaje ba ñëpp di nelaw loxo ca kaw ñu dunu nelaw dañuy fanaane tëgg yonor loxo yi nabi jar na ko Mustafa jar ko Serigne Cheikh Alou yal na ko Yàlla gërëm moo demoon Ndakaaru jël fa gaynde ga gaynde yóbbu na gaynde bàkku leen sëtu Maodo rabbi diine saaji na doomi soxna ya démb bi jàll la nu wàlle bàkku leen sëtu Maodo Cheikh bi diin ba jóg cheikh du mer ba tey yàggul di ñaan ma tudd yox yaxi bàkk leen sëtu Maodo ruq am na borom Serigne Cheikh ay borom ku bàyyiwul dugg ruq dina fekk la ci biir ruq di la rëkk sa ndig rëkk Serigne Cheikh ay borom maam Maodo si amoo morom waaye ana soppay Seydil Hadji Malick macha allah jëfal nga yàlla sa borom taggi rësoolu ñépp yéem tanti taggam ya jël nga ko moo tax Seydil Haaji Maalik ñaari rakka la daan naa fi lu ko dimene bi dee jàng Faatiha Baqara ba Mariam ji des mi jàng Faatiha Mariam ba ah. naasi le prince de Tivaouane xam nga li ma wax Maodo ñaari rakk la daan naafila guddi benn bi day jàng Fatiha Baqara ba Mariam ci des mi jàng Fatiha Mariam ba naasi eh, dama ñaari rakk la daan naafila guddi benn bi day jàng Fatiha Baqara ba Mariam bi ci des mu jàng Fatiha Mariam ba naasi moo tax oustaz Modou Fall Maodo mus nay <coughs> la benn waay ni da koy toppandoo waaye daa mujj sëlmal Maodo ni ko dëng koo mën man nga xam ni sama bopp bi ma nga jëm juróom ñaareelu sama tangki juram nyare ñaareelu suuf tàccu leen Seydil Haaji Maalik su ca jugee nag nga dégg nodd ga bilaal moo daan noddal yonent bi la borom ahadun ahad tey nga dégg waaw waaw allahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar tey waaw yaakaar naa ko nag ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah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 taggi rasool lu ñépp yéem tanti taggam ya jël nga ko tàng ba yeneen ba tàmbalee nekk di leer nga tàmbalee xilaasu zaab bi jël nga leen fi leer gi jaar wax nga ñu ko wax nga ñu kiiraay ya mu doon sàbbaale yàlla kii bindoon wax nga ñu géej yi dogoon na mu ca sa Wah nga ko wax nga ñu abraha ki ñayam wax la ko mer la waay ba mu jëm ca kaaba ngir mabbu ko dem la ko ca dal wax nga ñu ko wax nga yónneen kañ la juddoon wax ka ko doon wax nga ña doon ndokkeeli yaayam bakkanam leer ya fa jolli wayi ko singaari wax nga la ci zamzam Cameroon xiisak teen ba ngir kañoon nga ñu ko wah nga ñu baayam Abdoulaye takkiinu soxnaam wax nga baay ba ñaani woon baay jaxaay ba ko may ba jaxaay wax nga ko fi may daanelee wax nga ñu gàddaayu Rasool wax nga ñu doon teeru Rasool wax nga doon Rasool ci biir topp ko alaaj Pape yëf yi na waar sëñ ah, Pape